Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yéen ñuy suivre ci sen sen sama xalaat ñu leen di nuyu di leen ziar di leen fatali ni yen ngi sen programme plante de la semaine plante de la semaine semen comme ni ngeen ko xamé chaque semaine dañ ñew ci ben eh, gantax goo xam day am ci rew mi professeur wax ñu yan jariñ la am ci walum gi yaram professeur lay nuyu di la ziar. suñu ñu ngi lay fay. ñuy fatali ni professeur Ousmane Ndiaye moy borom Boga Bio te ma nga nek fele ci diwanu Kër Massar tradi praticien moy ko xamni Euh, fajkat na boo xam ni dafa jëm faj gi muy def dafa jëm ci wàllum gàncax surtout nag gàncax yu sax fii ci euh, réew mi euh, kon professeur li bëggoon xam tey mooy plant bi nga xam mooy persil nga xamante ni maam jigéen ñëpp xam nañ ko mm-hmm. yan mooy ay njariñam ci wàllum wér yaram ak nan lañ koy jëfandikoo salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape nuyu nañ la ziar nañ nuyu mbokku internet yi nga xamante ne ñu ngi ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew mi yëpp mm-hmm. kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu sa ak sa sant da fekk fa nga nekk rek jox la loxo euh, pap persi def naa ni moom Sénégal boo ko waxee moom jigéen ñëpp xam nañ ko donc te dafa bëri njëriñ xam naa ne nag am ba njóobeen ni moom roof rek lañ ci xam. Ah, waaw waaw <laughs> ah, parce que daam am nañu bëgg lu saf. Hmm. te fekk njëriñ yow ëpp na loolu. li mën a hmm. faj bëri na trop. waaw hmm. ah, moo tax nag ñuy surtout ñuy def émission yi rek pour nit ñi di mën di xam. dëgg la donc euh, am na benn defe naa su ma juumul benn livre la xaw ma benn la bu wax ni. li nekk sa sa biir wàññ na nga nekk moom moom nekk sa sa sa kii. waaw waaw sa médicament. mosoon nga ko wax ci benn vidéo xaw na yàgg. waaw waaw kenn ku ne sa waañ. waaw daa war a nekk sa médecine. sa médecine waaw kay <laughs> parce que li ci waañ yëpp lay faj. waaw donc loolu loolu loolu noonu la demee nag. léegi boo defee nag persil bi nekkul rek roof la mën a jëriñ. Mm-hmm. Pape dinañ ci wax tey njëriñ yu bëri donte bu ma tee fukk sax baax na. waaw defe sax war na ko mën a ëpp. Mm-hmm. ni Bercy am na njariñ yëpp yooyu. donc parce que bu ñu xoolee dafa riche en fer. am na fer. bari na ci trop. dafa riche en vitamine surtout vitamine C. am na ci. Eh, calcium. am na vitamine K K1. am na ay lipide. am na vitamine A. am na vitamine B. surtout B1. B2. B3. B5. B6. B9 B12 donc am na vitamine B quoi. macha allah donc euh, garab la goo xamante ni daal dafa bëri hmm. bëri ay njariñ hmm. donc roof bi rek rek taxul mu jóg hmm. donc duñ koy utiliser nag en général bu amoon lu mel 50 grammes ci persil def ko infusion man toujours wax naa leen ni lu jëm ci feuille dañ koy infuser boo fekkee nag graine bi baax na jiwu bi day faj wala reen bi wala persil bi noonu rek baax na nga def ko infusion ci 1 litre d'eau benn litre ndox. Mhm. léegi su ko defee nag ñaari kaas nga ci naan par jour. Mhm. mais avant repas nag moo gën avant ngay lekk. kaas bi ñu ndekkee ba fees. Mhm. nga naan benn. bala balaa guddi nga naan benn muy ñaar ci jour bi. avant ngay lekk nag. du bokkut ak après repas. léegi bu ko defee nag baax na feebar yi ñuy bëgg a kon defe naa ni niñ koy utiliser leer na. waaw donc bu ko defee nii nga koy lii yooyu ma loolu ma wax feebar yu mel ni mën na ko faj wala dina ko atténuer ba nga xamante ni nit ki dootu ci am jafe-jafe. Mhm. benn bi ci njëkk muy rhumatisme. rhumatisme waaw rhumatisme feebaru tànk ak yax yu métti yu demee noonu. waaw ñu naan mhm. xam ne moo sonal suñu mag yu bari. Mhm. moo leen sonal bu ñu amee boobu. di ko def noonu dina leen dimbali. sànq ci vidéo bi ñu jógee waxoon nañ la calcul rénal. waxoon nañ ci persi. donc moom it boo koy naan dina la ci dimbali. dañ ko waxoon ne ni euh, nga koo xamante ni buy saw. Mhm. saw mi du bari. Mhm. maanaam li muy saw bariwul ndoxu saw bariwul. Mhm. maanaam bi saw tuuti lay saw. kooku buy jël perse dina dem bay saw normal exemple. donc gis nga loolu da koy réglé. ki xam ne dafa am problème mu euh, foie. bi di am problème moom it buy jël perse perse baax na day nettoyé foie. ki xam ne dafa am problème mu rein aussi. problème mu rein. persil day nettoyer rein. donc yooyu. persil la savoir man loolu moom baax naa xam naa rein moom daa mel léegi bëri na ñum sonal. loolu rein kay dafa sonal nit ñi fi ne Pape. dafa sonal nit ñi. donc ñi nga xam ne am ay trouble des règles. jigéen ñi xam ne seen règle du normal. damay am problème. donc bu bu nee trouble rek mooy mu am problème soit mu nek irrégulière wala mu nekk abondante maanaam li muy du du normal. maanaam nor règle normalul mhm. wala muy bari mhm. comprendre wala bu ñëw mu ñëw tuuti yëpp règle bu normalul la mhm. donc yooyu persi tamit boo ko amee di ko defee ni ñu ko waxee woon sànq baax na ci donc ñi nga xamante ni dañu am problème woo règle suñuy jël persi boobu bu ko di ko naan yàlla mën na leen a saafara ñi nga xam dañu amee paludisme ba ci sibru sibru bu ñu amee persi di ko def loolu moom it baax na ci Euh, persil bi jigéen ñi toggee. waaw ki nga xam ne dafa sibiru bu ko digal di ko infusé noonu di ko naan baax na ci moom. Euh, anti cancer la aussi quoi. Hmm. c'est-à-dire anti cancer bi nga xam mooy ñi nga xamante ne amaguñu cancer. Hmm. su ñuy jël persil boobu du ko naan lu bëri. Hmm. parce que dafa dafa am ay antioxydant. donc yàlla mën na leen a musal ci cancer du leen dal wala boog. du leen dal leen day jafe. day jafe waaw waaw loolu prévention la prévention la pour cancer. donc di ko jël di ko infusé di ko naan noonu. donc pour la digestion aussi ñi nga xamante ni seen problème mu digestion dañu am problème ci. Mhm. ci lek muy rees wala yu démé non mhm. donc tamit mën nañu jël euh persi di diko infuser noonu di ko mhm. ñi nga xamante dañu dañoo am problème yu yax day suuf xam ne yax yi dafa fragile. <coughs> wala mu nooy wala dañu am problème mu yax daal. wala ñu amé problème cartilage. wala ñu am problème mu bëñ. maanaam xam nga am na ñoo seen bëñ yi dëgër lu yu démé non waaw. yooyu yëpp ci problème mu yàq lay dugg rek. donc loolu bu amee persi bi. kon naan yàlla mën na ko ci mën na ko ci dimbali. ah dafa bëri calcium xanaa. Euh, waaw am na calcium. Hmm. wax naa ko sax problème cardiaque nga xam dañuy am problème cardiaque problème xol. Hmm. tamit bu ñu jël euh, persi bi. Hmm. tamit yàlla mën leen ko saafara di ko di ko naan mooy ñi xam dañoo am problème xel ak xol yu demee noonu. ñi nga xam dañoo am problème yu ñuy wax santé mentale. santé xel. yooyu yëpp yu bëri da ciy dugg. ay épilepsie ak yu demee noonu. yooyu yëpp da ciy dugg donc bu defee bu amee kii bi persi bi. daf koy infusion di ko naan yàlla mën na ko mën na ko saafara ci problème boobu. ñi nga xam dañoo am des troubles intestinaux. troubles yoo xam ne maanaam ci wàllu biir. intestin yi nga xam ne butit yi dañuy am problème. moo xam colopathie fonctionnelle ak yu demee noonu da dugg tamit. boo ñëwee nga xam ne ci problème biir daal seen seen problème fa la nekk. amee. persil persil boobu. Mhm. di ko infusé di ko naan yàlla mën a leen ci defaral xéwal bu baax. Mhm. ñi xam ne dañoo amee ballonnement. ballonnement ballonnement. wala biir bi day ngelaw wala yu demee noonu. Mhm. moom it bu ñu ko amee dina yàlla mën na leen a saafara. ñi nga xam ne ñoo amee infection urinaire mooy bi ñu doon wax sax. Ah, nga xamante ni suñ ñuy dem toilette suñuy kii nu suñu tuur ndox tuur ndox ak demee noonu day xaw a métti wala muy jafe-jafe. wala ñuy am yenn perte ay liquide yu demee noonu ñuy génn. mën na yàlla mën na leen saafara. ñi nga xamante ne dañuy am tamit problème mu constipation. Ah. am dañuy seere lu bari. Mhm. problème la. Mhm. Euh, moom it bu amee persil boobu comme ni nga ko waxee nii. Mhm. mun nga dem ba di dem lâché di da la waaw day day day day éviter constipation. Ah, waaw donc bu ko defee kon yooyu gis nga baax na ci kii nu mu tuddati. persi baax ci ci persi. loolu loolu loolu la ñuy wax à usage interne yi mooy yi nga xamante ni yëpp boo xoolee. dañ ne la da nga koy naan bu ñu demee ci usage externe li nga xamante ni tey ci ci yaram lay nekk mhm. tey ñi xam ne ay góom ak yooyu tamit mhm. da nga amee persil dëbb ko comme ni ñu ko defee roof mhm. wala nga def ko sunguf ça dépend oh. waaw di ko def ci ay góom ak yu demee noonu ay picc wala ay ci kii ci kanam ci kanam mm-hmm. wala ay nag wala heure wala heure rek yooyu moom yooyu da koy da koy da koy da mm-hmm. da koy saafara loolu la ñuy wax usage externe quoi mooy li ngay naan mais mm-hmm. usage externe mooy li am da da koy saafara moom am na benn feebar bu ñu doon waxtaanee semaine bi passé si bi si dafa am si loo wax moo tax xaar ma laaj la ko xam moom da ci euh, muy gonorrhée bi ñu doon waaw non non du ci wax wax naa ko sànq daal baax na ci mooy infection urinaire bi waaw waaw balaa ngaa boo ko waxee rek waaw boo xoolee sànq bi ma ne les maladies moo tax ma ne lépp lu jëm ci biir bi rek en général ci mm-hmm. intestin bi daal mm-hmm. ci duggaale ay colopathie ci demee noonu da ci ci biir soo ñëwee ci les infections urinaires mm-hmm. bi ñu doon wax ak perte vaginale yeeg yu demee noonu yëpp da ciy da ciy duggaale donc parce que bu ne infection rek sama xel dem a yaatu effectivement noonu lay demee. yooyu baax na donc euh, xéwal yaa ngi fi de Pape ñun lu ñu am. ak persi wax dëgg yàlla persi yomb na. <laughs> persi yomb na joxewul loolu la baaxee ci rein lu ko mm-hmm. gën a mën ci rein ak fois mm-hmm. presque bariwul quoi. Oh, donc loolu aussi. tey tey Sénégal. xanaa ñuy def précision rek nii li nga wax nii yëpp nekkul tam nit ki da koy baxal tey naan ko rek daal di jaaxal. waaw kay waaw <laughs> loolu tam boo ci mën a def ay leeral dina ci. non Pape loolu moom su ne euh, damay bëgg a bàyyi faj mi. te dinaa ko bàyyi nag parce que man ne mënu ko am na ko démb garab laa ko jox cinq mënu ma bii mooy cinq jours yi amagul effet parce non non Sénégal bi man toujours li may wax dafay leer man man nee naa la du faj ci nit ci ñetti fan. waaw du faj ci une semaine du faj ci un mois. ñu bëri salon feebar bi daal que tamit nit day feebar cinq ans wala dix-sept ans parfois nit wala vingt ans. parfois man bëgg nga une semaine bëgg ci une semaine wala trois jours wala ci benn garab bu mu jël benn yoon c'est-à-dire que il faut ñu xam ne loolu du faj. même boo ñëwee jënd garab benn yoon naan ko mu jeex bi soo résultat jëndaatal continuer mais am na yoo xam ne yaakaar benn boobu rek war na leen a faj définitivement. waaw waaw dafa jël ko mu jeex rek talewul ñu la loo wérum. waaw dafa benn euh, xam naa bëgguma koy développé kilifa bu mag la ma dimbali ci wàllu faj bi ndax dama ko doon faj benn garab. dafa ma dimbali nag parce que loolu parfois di wax ak ki lay faj dafa lay dimbali. Mhm. te xam nga kilifa la kilifa yi dañu am sañ-sañu wax. Mhm. dama ko jaay benn garab mu naan ko jeex gisul benn résultat franchement. ndax il faut que nit ñi tamit ñuy wax ñuy waxante dëgg quoi. waaw mu ko mu woo ma ni ma gisuma ci dara li ma waxoon maanaam gisuma benn résultat. ma ni ko ah kon de noonu nag continuer mhm. mais nag mu nekk koo xamante ni ku neexal digal la mu jëlaat beneen garab. Mhm. franchement waaw waaye mu jël quelques jours la ci woo woo ma. Mhm. ni ma premier ba kat man la woon gisuma. kon su ma gisee jar na ma ne gis naa. waaw daal ma vraiment léegi gis naa résultat waaw. man ko nak gis nga fajj ni la demé mhm. tay bo yemoon ci benn ba rek da garab gi baaxul après du yem fofu de après day dem nan waji ab triangle xamul dara kay waaw waaw ah, xolal na man ko bo yemoon ci benn bi waaw c'est grave man ko boo yemoon ci benn bi da nga nan garab gi baaxul waaw mais da nga continuer nga continuer ya mo wal sa bop ni ma li nga soxla woon nga ko man mhm. ko nak fajj non la parce que sa yaram mi ngi doga am am lim soxla ci élément yi mi ngi koy doga mhm. mi ngi koy doga a matal quoi donc non lay demee mais ci nga garab boobu jeex na mu jaar troisième mais daf ma dimbali ci faj bi parce que. kii na ma quoi. sew sew la lool sew sew la quoi. parce que le fait que mu nangu wax la ni gisuma. Hmm. le fait que la te mënoon naa gisaat tam noppi. waaw kay waaw yow bu ko defee mu bàyyi la ci defee ne ba léegi. waaw kay garab gi nga ko joxoon faju ko. mais franchement kon ah, ah. su ma gisee jar na ma woowaat dañu la gis ndax xam nga loolu ñuy dimbali ñun ñuy. fekk waaw waaw même ñuy ñëw si yow dina leen dimbali. waaw mais am na yoo xam ne traitement la waa traitement dañ ma war xam mu may tekki. ni muy tekki waaw ah. traitement dafa dafa am solo baat boobu. dañu am solo dañu bëri xamuñu xamuñu mooy lan. Ah. c'est-à-dire que gis kii faju pa benn garab di nga ko jox nit balay xaaj yow am na ko ma ko envoyé wala audio. am na muy mm-hmm. xaaj na résultat. Ah, waaw waaw ndax damay continuer wala déet. waaw li des si garab yi mu bëgg xam ndax da jar na mu naan. waaw ndax jar naa client boo xam ne bu ñu tamit noonu la garabam xaajul. Mm-hmm. mais na ma wér na. waaw am na koo xam ne gis nga garab boobu mu naan mën na si naan ñett wala juróom te wér waaw il faut ñuy xam loolu aussi parce que organisme yi organes yi bokkuñu. Mhm. feebar yi bokkuñu. Mhm. nit ñi bokkuñu yaram yi bokkuñu. loolu mhm. tamit foog ñu koy xam ci ak feebar bi temps bi mu am ci nit ki. waaw tam bokkul. bokkul ban degré la am ci la ci nit ki ban degré la am ci moom ci waaw ku bëgg a faju feebar 5 ans. am na benn audio bu ma la bi ma waaj a ne faju na ci réewu tubaab yi 5 ans. te senegal Sénégal fu ne faju na fa. c'est vrai te bu ko joxee garab ñetti jël na ñetti yoon garab doo ko wér. waaw mu ngoog quatrième sax moo ko jëlal boppam. waaw mu ngoog moo décidé jëlal ko boppam. waaw c'est-à-dire loolu mooy traitement c'est-à-dire que tey su ma la ko doon misaal Pape dama naan la boo bëggoon a tabax kër. bëgg am fukki birig ni da ngay tabax kër mënta nekk. déedéet. la nombre de ya nga sax la. ki bëgg tabax ki bëgg tabax ñaari 200 ko tabaxal. yow mi bëgg tabax ak sa est ce que même brique yi mën nga utiliser pour tabax. déedéet mën na nekk noonu dong la affaire yi demee. vraiment <laughs> noonu dong la demee. ah aussi simple que ça. yow bëgg ngaa tabax ñetti néeg. Mhm. wala juróomi néeg ak saal ak douche ak waañ ak yee kee moom ñaari néeg ak saal ñaari néeg rek la bëggatu sax saal ñaari néeg rek la bëgg tabax. Mhm. ak douche. mais du ngeen bokk le nombre de briques yu ngeen utiliser. Ah, ah. faj bi noonu lay demee rek. kër kër la rek yoon na kër yoon nga kër. waaw waaye bokku leen ay ay dimension. ay dimension waaw kay kon waru leen tolloo. waaw nombre garab yi ngeen jël. noonu lay demee effectivement waaw noonu lay demee. loolu foog nit ñi di ko comprendre quoi. fi nak mom lolu la fi nek problème nan vidéo ñu wax sa bari na pour di fatali mm-hmm. nit ñi dañuy yakam du ñuy faju ñuy faju parce dañuy bëgg dañuy dañuy dañuy dañuy négliger sen wër gi yaram temps bu yag ko ni fébar ba fébar bëgg faju légui légui wër légui légui té ñi publicité ñëpp dal la mën nañ la fajj ci 24 heures boko naané ci tay ci jour mi ngay wër ñi ci bëri li ñu wax c'est pas sérieux mm-hmm. parce que ku am xel rek wala xam ni démé wul non nit mënul cancer nga nako wala joxe sama garbu cancer danga koy naan tey wér tey loolu xam nga xam nga nag ko feebar moom ndax ko daa yomb day yomb ndax ki feebar li mu bë dafay am lu mu bëgg dégg li mu bëgg dégg même bu dul dëgg moom la bëgg dégg mm-hmm. comprendre mi ngi mel ni jigéen ñi rek dangaa rafet yaa fi gën kii sañse bi nangam même bu dul loolu la bëgg a dégg waaw dégg nag li bëgg dégg soo ko koy wax loolu xam nga suñu politiciens xam nañ ko dañuy ñuy naxee nit ñu bëri mooy li ñu bëgg a lañ leen di wax mm-hmm. bëgg a dégg des fois dootul nekk fi naan dëgg la lu dëgg parce que li ñu ko wax neex nit ñi tam loolu ku feebar nga naan ko mën naa la faj ci benn fan. wax ji da koy neex ba day lay si te xam na ne ci biir intérieur am loolu c'est pas logique. waaye nag comme daa feebar wér la bëgg a nga ne ko ngaa wér ci fan day ñëw lool la quoi loolu c'est c'est c'est sub sub subconscient la nekk quoi doomu aadama mm-hmm. doomu aadama bi da koy nax bu xam ni da koy nax mais day nangu nax que loolu dafa fóot ci xelu doomu aadama malheureusement quoi <laughs> dañoo bëgg ku leen nax <laughs> mais nag c'est c'est dommage daal en mos naa ko wax dañuy jël su ma juumul benn mm. tubaab laa ko gis ci net bi muy wax ni beneen moromu tubaab wax ni kii garabam yi baax na waaw mu ne parce que jël na ko cinq ans mu ngi ko jël cinq ans par an cinq ans mu ngi jël garab yi mhm. ñun fii kan nga fi jël garabam un an deux ans yu mat non yàkkamti mu war nañ koo bàyyi waaw yàkkamti mu nga faju daal da ngay faju ba wér ba wér waaw damay faju wér ci ñett fan wala ci une semaine li sax comme maa ngi faju ma li ma amal solo mooy naa wér mhm. loolu ci am solo fajul ba wér rek comme ñi ngi lay jox ay garab garab yi baax fajul ba wér. continué voilà loolu. waaw bu ñu mois nga bëgg a faju ci une semaine. yaa xayti loolu mënta nekk na man da nekk lu nit aay aay aay tamit euh, plante yi garab plante yi boo koy jël day day lijjanti problème bi ndànk ndànk ndànk ndànk ba euh, maa ngi remercier benn patient euh, du ma wax turam mi ngi ci médecin bi. ni ma doon def analyse hépatite laa ko doon traité quoi. mun mhm. yoo xam ne bari na de man ma waaye nag wér jar na moom kooku ñeme mi ngi faje te jigéen la de. waaw wax na dëgg faje na mhm. na trois na bi ma ne ko yow kay bu la neexee bi nee na ko kay yow kay amatul benn problème mu nag. trois virgule charge virale bi. bu ma nee waaye bu <laughs> mhm. li ma gën a neex ci wax ji mooy mooy bi ma nekk bi mu ne ma li ma fa ñàkk ëpp na deux cent mille ma waaye nag loolu métti cher na de mu mënoo garaaw parce que faj moom mm-hmm. jar na loolu ah, yàlla def tamit man yàlla dimbali na ko loolu tamit sant ah, am ci <laughs> yaakaar dafa wéram yàlla mën na ko jaare say loxo mm-hmm. yàlla bu yaakaar yi tax amiin kon professeur ñu lay bàyyi nga tàggoo bari jërëjëf mhm. wax ni ñi nga xamante ni am nañ calcul rénal ak ñi xam ne même amuñu ko dañuy faral di naan ndox bu bari parce que ndox bu bari moom euh, day defar bari lu bari ci doomu aadama mhm. loolu daal ñu ngi koy dénk au minimum daal deux litres yi mhm. ko mën a ëppal baax na ku ko mënta ëppal it lu mu gàtt gàtt deux litres moom la koy naan par jour asalaamaaleykum loolu garab la waaw <laughs>